directeur de ARD Chérif Diagne, représentant du ministre du Conseil et du Cosmotorogar monsieur le secrétaire exécutif du PNL, en même temps maire de la commune de Kassé, monsieur Mamadou Diaw, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Noto Dioba, monsieur madame les chefs de service départementaux et Madame la CPA du Petit Triangle, Taïna Boudjelé, Monsieur le chef du DAC, Boudjali, DAC de Moto Monsieur les, Madame les coordonnatrices du comité consultatif départemental, Aramdem, Madjigène Derbich, Khadim Ndiaye, Fatou Ndiaye, Novaï Sow, Daye Ndiaye, Fatou Ndiaye Ndeye Sira, Bay Fandel, maire Dior Diouf Sayar le comité consultatif des femmes du département de Thiès en partenariat avec HT Industrie Madar a initié une tournée de mobilisation et de sensibilisation des organisations de femmes pour créer des activités génératrices de revenus pour une meilleure autonomisation de ses membres. C'est ainsi que nous respectivement dans les communes de Kayar, Pour, Kermousso, Yandere, Keneva, Ngunjan, Ndjeyesira, Tiesno, Noto, Toubatou et aujourd'hui à Tassé pour la journée de clôture. Nous avons ainsi visité 11 des 13 communes que compte le département. se veut économique et qui avec la politique de l'État dans le cadre du programme Sénégal émergent nous a permis de communiquer et de communier avec les femmes du département de caisse mais aussi de dégager des pistes de solutions pour une réelle autonomisation de cette situation Et comme vous le savez, tout ce qui rend autonome de femmes rend autonome plus de 50% de la population, puisque les femmes constituent plus de la moitié de la population sénégalaise, n'est-ce pas Ça aussi les Le pari n'était pas gagné d'abord, mais nous y avons cru et voilà que les objectifs que nous nous étions fixés sont largement atteints. Ceci nous le devons à des femmes braves et engagées, mais aussi à l'appui financier de certains et le soutien des partenaires techniques. Développement communautaire, CADL, ARD, e, tout en soient tous menacés. Au cours de nos déplacements, nous avons mobilisé est mise en place au niveau de chaque commune des produits mara d'une valeur allant de 500 000 à 1 500 de francs CFA. Mais nous avons aussi recueilli les données des organisations de femmes qui tournent autour des besoins suivants. Formation en marketing pour vendre les produits transformés. Formation en éducation financière formation en gestion de crédit, besoin en financement pour la création d'entreprises, fermes agricoles, centrales d'achat, unités de transformation céréales, fruits et produits halieutiques, laitières, café, huile, etc. Besoin en matériel agricole, tracteurs équipés, batteuses de mille, plateformes multifonctionnelles, 13 à besoin en financement pour l'île Pour répondre tout de suite à une de ces le comité consultatif, avec l'appui du service départemental du développement communautaire, a planifié des séances de formation pour la capacitation des comités de gestion en gestion administrative et financière. Pour les autres points, des pistes de solutions seront définis avec les services compétents hein, comme ARD. Nous avons ensemble élaboré des calendriers de, de rencontres périodiques où les femmes pourraient discuter à leurs problématiques, à savoir solidarité, entre-aide, remboursement crédit, renouvellement des commandes de produits, etc. Ainsi, le comité consultatif le et ses différents partenaires effectueront des tournées de suivi mensuelles au niveau de chaque commune en faisant une évaluation dans, tous les six mois. Au bout de ces tournées du comité consultatif départemental va rencontrer le bureau du comité local et ses membres pour définir la conduite à tenir face aux défis qui les interpellent et décliner le cadre de bord. Les résultats obtenus durant ces 24 jours de tournée se retournent comme suit. La régionalisation et sensibilisation des 11 organisations de femmes. La mise en place de 11 comités de gestion. L'identification de 100 fermes réalisables et, réalisables et réalistes. L'engagement de cette maires pour l'attribution des terres à usage agricole pour les femmes. La distribution de produits Madar d'une valeur de 9 millions et avec l'appui de certains maires. Je saisis l'occasion pour dire que si nous avons pu réaliser ces tournées, c'est grâce à la générosité du maire de Kassel, Mamadou Diaou, par ailleurs secrétaire exécutif du PNL, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement au nom du comité consultatif, permettez-moi de remercier sincèrement M. Mamadou Diaw. qui a eu à nous et décidé d'accompagner les femmes du département de terres. Les remerciements sont aussi à l'endroit de tous les autres maires qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la réussite de nos activités dans le domaine communes respectives. Merci au service départemental du développement communautaire, notre service de tutelle, qui nous a accompagnés tout au long du processus. Mention spéciale aux organisations féminines qui ont très, très tôt pris en moi et à cette initiative de mise en place des activités générales de revenus qui n'ont fait que renforcer l'autonomisation des femmes et qui est notre contribution au programme Sénégal émergent du président de la République Macky Merci à tous. di jiital ci bi directeur mi nga xam ni mu ngi fi teew directeur wu boos di PSE Ibrahima Wade nuyu le maire de Tassette secrétaire exécutif bi Fendel nuyu le directeur de ASD nuyu ñi fi teewal ministre conseil secrétaire permanent du COS Petrogaz Mouhamed Mendy jiite leen ma nuyu chef de DAC bu Noto bu Diary may nuyu suñu sous-préfet bi nga xam ne mu ngi toog ak ñun bokk ci ñun wax dëgg yàlla di ko sant di ko tatagal di yu góor ñi jigéen ñi waaye may di bare nuyoo nag ñay xale yi ma làngal néew ma leen kaay leen toog fee dama leen ñëw leen ñu làng ndax liñ fi wax ñoo ko bokk ñoo koy jëfandoo ñoo koy yëgandoo te li ma may may jël kàddu ci ñoom la kon nag su ma leen dee waxal nañu jënd ak man nangam man su ma naree jóg ñu woo ko ma su matul ñu mottal kon looloo taxawaay yi ñi ma nekkal kenn ku nekk di coordonnatrice ci benn commune kenn maa ngi amul ñoom ñëpp ñëw teew kon maa ngi leen di nuyu di nuyu seen i membres di nuyu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi fi waaye di nuyu tamit presse bi nga xam ne liñ fiy def ña fi nekkul ñooy dem jottali leen ko ngeen baal ma sama xarit tey na bu njëgeen maa ngi lay nuyu bu baax xaj na boo nuyoo ci njëlbeen te du siwaat di nuyu lim da nga dul matal ndax it nag ku lim dañ naan da ngay juum doo juum da nga dul matal ginnaaw bu ñu leen nuyoo damay leeral tuuti rek ci li indi lii tey bi ñu amee initiative bi dañoo dajee développement communautaire waxtaane ko ak jigéen ñi ni leen kat bu ñu sañoon ni ñuy def seen nootoo nañu ko yaatal ba commune bu ci nekk man tey gis boppam man koo defal ko bopp bi ma leen koo waxee ñoom ñëpp ñu rafetlu ko ànd ci mu leen dafa am lu xew kenn ku nekk yaa ngi yëngatu jigéen ñi noppalu wuñu guddi noppalu wuñu bëccëg ñooy teel a xëy di guddee wàcc di def seen devoir ba ci biir ko nag ak Plan Sénégal émergent mën a jëli suñu wàll nag ci li nga xam ni moo fa bi ñu waxtaanee ñu gis ni war nañoo mën a lëkkaloo ak Madaar ñu woo directeur Madaar bu ñëw ñu leeralal ko li ñu bëgg a def mu ne ànd naa dinaa leen dinaa leen jàppale dinaa fexe ba produit bu ngeen demandé dinañ ko indi animation bi dinañ ko def. ñu ne kon nañ dem léegi tey lañ doon def monté nañu dossier bu 7 millions 500 defe naa maag ba jigéen ñi suñu kër yi sa nekk ca banque ba yàlla dogal ki ñu dooree def suñu calendrier njëkkee ci commune yi ñu njëkkee jandee pour. ak Kër Moussa ñoom ñu fayal seen bopp ñu dem ci yeneen bu ñu egsee ci Talla Diagne mu ne man maay fayal sama jigéen ci Talla Diagne nag la samay fayal sama jigéen dool ñu def ñëpp macha allah. seen i góor di leen jàppale. 500000 la ñu doore woon ba egg ci 1 million 500000 am na commune yoo xam ne 1 million 500000 la ñu wàcc kon loolu tamit dañ koy sant yàlla ba tey fi may toog pour wax bor boobu ñu waroon a jëli jëleetuñu ko. mën naa wax ak waa Madaar ñu ngi man benn commune rek la ñu am bu fayagul 500000 waaye 9 millions yii ba fi lim bor amu ci budul 500000 boobu yàlla dogal. ñu dem ba doog waxtaan ak Mamadou Sow mii meer tase fekk ko bureau nii ñu taxawee ñun ñëpp nii lañu àndee ndax ñun amuñu làq amuñu nëbbatu bu ñuy dem ñooy bu ñuy wax ñooy waxandoo booy wax ci ma wax ci aram dem aram mbay la ñu yàlla binde noonu la ñu ànd ca yàlla tax bi meer waxtaan ak moom wax ko li ñuy def ni dinaa leen gunge woo ay kilifa ci saate jël engagement kilifa yooyu jël engagement ñu dem ci monsieur Serigne Diagne nii mu boole jox moom bañ demee toog ak moom ñun ay xalaati formation lañ doon am ak yenn crédit reventin waaye lim ñu xelalee moo indi tey ñu identifié cent ferme ci département de Thiès maire yëpp dugal ci seen loxo d'accord ni dinaa jox jigéen ñi suuf am na maire boo xam ne ni ma vingt hectares délibéré naa ko joxal jigéen am na koo xam ne nee ma cinq tool bu ci nekk deux hectares jox ko jigéen mais bi toog tey sakeet moom dëkk ni ma quinze fermes laay am a Kaseer comme loolu tamit dara dàqu ko ñun ba ñuy jóg ma naan rek dañu yëkkati woon waaye tey dugg nañ dëkk dëkk dëkk nag ci plan Sénégal émergent ndax nag su ñuy wax plan Sénégal émergent te fii ndox am fi suuf am fi gàncax Sénégal émergent mën a doxee bu ñu amee ay ferme ba li dama ne loolu mooy émergence suñu fexee ba jur fii ñu am ay nag yu doy di ratt meew mu doy di jaay meew mi ci suñu biir li di des ñu koy exporté di ko soppali sunguf dama ni kon suñu naan meew mi nga xam ne amuñu fu kon xalaat yooyu mu ngi fi ca du jeex gëstu nañu ko gëstu nañ ko gëstu nañ ko ndax nag ci la ñuy dund ci loolu la ñuy dox loolu nag mooy suñu mébét te sincèrement yii fi directeur Serigne Foy wallaahi Mamadou Sow dañuy dem leen liggéey ak moom bu ñu paree bu ñu fexe kuy jàppale nit noonu ngay def gis nga kuy jàppale jigéen ñi département de Thiès te jàppale woon ñii toog dama ne leneen ngay wëri bëggoo développement bëggoo leneen leneen ngay wëri waaye wëriwoo lu suqali askan wi wëroo tamit luy saxal plan Sénégal émergent jigéen ñaa ngi nii ñooy xëy ñooy gont ñooy nekk ci seen organisation di def di dindi bi ñu recensé loolu lépp ba pare daanaka commune buñ ci dem li ci ëpp wax naa leen maire yi ñooñu dalal ñu taxawalal leen ay comité de gestion comité de gestion yooyu ñooy yor liggéey di leble di fayeeku ñu former leen tàggat leen ñu am am am am mën mën mën a defal seen bopp su ko a dogalee weer bu ci ne ñun nii ñu ànde dinañ def ci benn commune bu ñu demee ca commune boobee cotiser waxtaan diisoo ak jigéen ña fa ne comité local bi def suñu ay nag ci jàppalante sottil ko commune ba nga xam ne moo ayee weer ba ca topp ñu dem ci beneen weer commune dama ni jigéen ñi ndax politique rek di leen mobiliser ndax quinzaine de la di leen mobiliser ndax 8 mars donc bëggatuñu lool dañ ne daal weer wu nekk ñun nañ dem ci benn commune saafonteeg suñuy jigéen waxtaan suñuy jigéen maire yi leen responsable yi leen président de la république ñi nga xam ne moo nekk ci réew mi na jàppale jigéen ñi département de ndax xam nañu fi ñu jëm xam nañ li ñu bëgg xam nañ li ñuy def li ñu bëgg nag mooy moom suñu bopp man suñu bopp amal suñu bopp kon directeur jàpp naa ni lii buñ fi jógee kon Mamadou Thiaw ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm lay ñu waxoon sa bureau loolu nga def bés bii tey li fi am lépp Mamadou Thiaw moo ko tournée yi ñu doon dem metti na lool waaye wax dëgg yàlla ba ñu boolee ak sëriñ la ñu dem xam ne moom lañ doon dem di def transport di def restauration kon ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ñëw bi fii dafa tombé commune yëpp dañuy aye ba yàlla dogal tafee jël la 31 mu war a doon suñu clôture ndax moom bu doon xaar ba ñu indi ko tafeex mu doog ñoo dimbali ñu ni loolaa tax waaye ñaanuñu naa ko indi tafeex ñaanul ñu ñëw leen fekk fi ma waaye ñoom dañoo war a ay ñu ko kon collectif bi sa commune lay doon mu ne man waxoon naa leen dinaa leen dimbali kon bu ngeen ko mën a jafe ma dimbali leen kon looloo ñu indi fii tafeex jigéen ñi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm li duuf ci nag bi yëpp xajul ci kin bi waaye bu ngeen ñu fekkee ca terrain ba di ngeen xam ne ay ñayi xare rek a fi ne ay jàmbaar doo nga fi ne ñu bëgg seen gox rek a fi ne maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di jégalu ci gàddu bi bu dëggee ci man la dese waaye bu jàmbaar yi waxoon mu gën fee neex jërëgéen a def ñoo ngi nuyu jigéen ñi département bu Thiès bépp jël nuyoo bi teg ko ci suñu présidente comité consultatif départemental muy Ndeye Fatou Ndiaye di nuyu le monsieur sama càmmeñ bi nga xam ni mooy egsi fii moo ma jàppal samay tànk ba ma ñemee ba mën a egsi fii muy monsieur Ibrahima Wade mi nga xam ne moo yore plan Sénégal émergent ñu nuyu jigéen ñi ma àndal yépp jóge Thiès commune comme niñ ko waxee léegi tata la def jóge Thiès commune ñëw pour wuy si Ndeye Fatou Ndiaye ci clôture bi nga xam ne ñu ngi koy def tey fii ci Tassette ñu jigéen tas Thiès nag li nga xam ne moo ñu soxal ba tax ñu teg le comité consultatif départemental de la femme mooy l'autonomisation de la femme comme ngeen ko gisee ci kaw tableau bi lépp li nga xam ne ñoo koy def ba tax ñu signé partenariat ak Madaar mooy bëgg jigéen ñi mënal seen bopp demal seen bopp jëfal seen bopp ñuy gërëm nag faat bu baax parce que Madaar moom la commencé woon di liggéey ci commune de Noto moom moo xam ne moo jiitee département de Thiès te bañ jigéen ñi tëdd di nelaw mu ñëw signé partenariat bi boole ko ak Madaar ñu wërale ko ci département de Thiès yëpp bépp commune bu toog fii rek ma daal ñëw na ci yow ñuy sant Ndeye Fatou bu baax a baax parce que ñun li ñu soxla mooy li ñu wax Sénégal émergent te mënuñu wax Sénégal émergent te wax ñu jigéen ñi mënuñoo wax développement te waxoo jigéen ñi donc tey bu ñu ñëwee fii tey signé un partenariat ak Madaar gis suñu jàmm ñi nga xam ni moo yore PSE gis le maire de Tassé nga xam ni moo yore le plan développement local national ñun defe naa ni waratuñoo soxla dara ñuy xamal suñu jàmm ñi toog fii nag kani soxla nañu ay formation ci jigéen ñi renforcement de capacité soxla nañu ay projet jigéen ñi liggéey soxla nañu dem ci transport bi soxla nañu dem ci agriculture bi soxla nañu ay ferme pour que jigéen ñi mën am seen autonomie parce que koy jëf te niñ koy jëfee nag yaakaar nañ ci suñu càmmeñ yi nga xam ne ñoo toog fii ci présidium bi muy nga xam ne mooy le plan développement local bu paree ñu gis paye sa ñëw toog kon suñu xel day dal maa ngi gàttal sama kàddu di gërëm ñëpp di gërëm surtout sama nawle yi nga xam ne depuis 10 heures ñu mobilisé wu surtout waa Thiès 10 jógee Thiès yendu ñëw fii depuis une ñu ngi toog maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant Monsieur le ministre Ibrahim Ouad, Monsieur le maire de la commune de Tasset, Monsieur le préfet de Tasset, ak euh, mbooloo mu ñu fi fekk yépp maa ngi leen di nuyu surtout jigéen ñi ku ci nekk sa tur ak sa sant ginnaaw bi ma santee yàlla julli si Moustapha bi ci Medina maa ngi sant sama wasila Alaaji Ahmadu Njegéen madame Ndeye Fatou Ndiaye maa ngi lay nuyu dëkk bi nag su ma fi duggee damay nuyu sama mbokkum bopp sama xarit membre de l' alliance pour la république muy la maire Mamadou Thiaw sama mbokk sama xarit sama jaay Ndeye Fatou maa ngi lay sant di la gërëm di sant également ma sœur, sama cousine ma jigéen Derviche ma bokk ak moom benn maam ak ñoom Bambika ak toutes les femmes du département ñoom Fat Badiane Fat teewuma kenn ñoom Fat Thiam yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu waa ma fi fekk ak tous les toutes les femmes de développement. Euh, Ndeye Fatou man président Macky moo ma jox joxoon muy 2012 ñu ñëw fii si tool yi gis exposé ba nga ma defoon wëlbatiku ne ma gees maanaam mu ne ma sëy na bu mun a mun a ma. day fàtt mi mun a am lu ma dégg naa boobu ba léegi nag may jéem nga amoon koo nekk yàlla ji def ji def ba nga ñëw ci ñun naam formalisé wuñu ko may ndey fa ndey faatu egsi ndey faatu egsi fit gi ndey faatu si jom gi ndey faatu doomu Cees ndey faatu bismillah au sein de l'alliance pour la République moo doon dëkk bu doy waar Ndiaye ñu bëgg nga jàppale ñu ci surtout dans le département département bi nag fii su ma fi duggee nag balaa may yëkkati sax nag kàddu damay nuyu suñuy femmes lu mel ni Seyni Diallo lu may Seynabou Ndiaye ak femmes yi fi nekkoon di liggéey ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne pour l'alliance pour la lutte liggéey pour askanu Kaset maa ngi leen di nuyu balaa ma woon njëkk a ci ñoom laay commencé muy femmes yoo xam ne boobu ba léegi jàmbaaru fàq tëdd boobu 2008 ba léegi ñu ngi liggéey au sein de l'alliance pour la république ñooñu maa ngi leen di rendre hommage su ma ñëwee seen dëkk bi Ndeye Fatou maa jigéen ma wax <laughs> dañoo am une ville muy Thiès ak mu département sax Thiès lay wax booba ba léegi am lu fa nekk koo xam ni booba ba léegi yoon saa yi day toog di gént léegi ba cëg fan yi ne woon dina doon quatrième président de la république mu waax ko boobu ba léegi mu continuer ci gént façon attaque bu nekk mu xalaat ko du invective war na ko mais mais nit ñu nous sommes dans le temps de l'action actuellement président tam tànnul wax fi mu nekk nii lu dul déroulé ak mu am si jigéen ñi muy le PSE xam ne ñett yi was la muy les femmes le monde rural et la jeunesse les femmes du ñun le monde rural di taset gi et la jeunesse suñu njaboot Oui, président yàq yéen a président Macky nekk si Puma nekk si PUDC nekk si bourse familiale wàññi lu ñaas waaye yëpp kooku talul lenn lu dul liggéey talul wax bu ñu amee wax di nañu amé wax di ñu nekk ci liggéey bi nekk ci liggéey bi. ma bëggoon les femmes de développement yi fi nekk ñun xam nañu boor bu nekk le comité consultatif bi nekk. ñu xam ni am na Sénégal émergent benn programme bu son excellence le président de la république teg donc pour que mu ko eggal sotal ko ba mu mën a ragalaat suñuy njaboot ak suñuy borom kër il faut que ñu jóg jàppale ko naxe bi jéem Sénégal gouvernance ak sobre ak vertueuse moo fi am bëgg yéen ñii ñu tendre leen la main pour que ñu suqali suñu dëkk bi suqali Sénégal suqali Thiès SCS tëjoon na ICS tëj chemin de fer tëj na xale yi amuñu fenn fu ñu faratoo actuellement chantier de caisse yi reprendre nañu jigéen ñi ñu ngi surtout de revenu su ma paree nii incha allahu rabi dinaa war ak Ndeye Fatou Ndiaye mii ñu seet nu ñu leen di organiser le plus rapidement possible ñu dem seeti ministre de la femme ñu seet lu ñu war a mën a gëstoo waat le monde rural su neexee yàlla. te monsieur le maire je lance un appel dañoo dugg quinzième de la femme ren dafay ko tase bii yéen d'accord ngeen commune lañ ko daan defee mais dañoo bëgg commune ak yépp fekk si ñëw tase bii Ndeye Fatou def fi quinzième de la femme ndax fii la ñoree donc euh, yéen samay jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen tendre la xam ne ni ngeen def nii noonu la parce fi mu nekk tàllal la ko moo fi jeex lu dul ñàkk jariñu la koy bàyyi ba mën a jariñ suñu njaboot allahumma salli ala sayyidina Muhammad